باسم الإله يكفيني الدار يا الله سفين بقاء أبي lii fii ka yàlla. yow yaa ngi bëgg a dee. <laughs> li nga sentir ni mu toll. ke tax nga ko. yow li nga yëg nga wax na amul problème garaaw loolu daal la ci dugal yoon bi sax. avocat kan ko ha mo ne ko garawul garawul ji yonente bi sa moo dugg jaan ji jaan kum mat nga faatu kenn mënu ci dara ko dul yalla mm-hmm. rasulullah kum lugg nga wér kenn mënu ci dara ko dul yalla mm-hmm. sen ñaari poar ñom ñaar def rencontre mm-hmm. poaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam degrem diggante ak boromam poaru jaan bi ak setanem ñom ñaari degré ñu rencontrer rencontré bi gagné kan delu wat tisli affaire bi dañ jaan yi ci bir ak torotagem yonente bi jog tok xol ko tu tu nelaw <laughs> moo tax Aboubacar sixième point wax naa la ko la ko commencé ci tuub ga ci génn màkk ga ci bàyyam bu màgget ci dugg ci xunt mi jaan ji ko matt ji financement bi juróom benn yi kenn fekk ko ci Aboubacar Siddiq mii wa bi wa Abdullahi wa bi wa Abdullahi zidni fadlan ma lahu tanaaim وبي أبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما له تناعي وبي أبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما له تناعي سني خالد سنت واني ما غنيان تي أبو بكر pourquoi sa khadim rasul ngay ñaan ci mom moy kan mu ni ijabam mom la kel xam num top dafa am benn jigéen. pour wax la qualité. guide spirituel yu Abubakar Siddiq diggante ma borom. asnaw jëkkëram daa tukki. def business baana baana la. mu tukku faatu ko. soxna si gént garab gi ci biir këram daanu. mu yeewu ci gént bi ñu wax ko Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. moo yow loolu wut soxna si. mu ko jaxlé loo xam ne ko bigla sa bëd yaangi ni nelaw defumako ko nga tap tapal do doom ci soxna si lu xew mu ne ko dama gënt garab gi ci won so digg ëtt daalu bi ci guddi gi yonent bi ne ko bo demee nga teñ sa jëkkër dee ci tukki ba ha ah, mu ne waaw mu ne wooy ak yuuxu yuuxu yuuxu ñu tap tapal ko bu bon doom yi daw jëm këram dajeeg bakkar jëm ci yonent bi sallallahu salaahu salaam ah soxna si lu xewate ak sa joy yi mu ne ko dama am luma gënt bi néew ko ci yonent bi laa jóge de néew ko yonent bi wax na ma dara lan la mu ne ko damaa gént garab goon sama kër daana mën ko sa jëkkër daa tukki mu ne ko dinañ bis tey <laughs> coow laa ngoog la <laughs> as kon mos ta gis loolu <laughs> te moom in huwa illaa wahyun yuuhaa du waxantu du day am yonent bi nee na waa ndaw si sa jëkkër faatu na booy ba nga dem tiiñ ci taalibe bi ndaw si taalibe bi dajeeg si ne ko sa jëkkër dañ ñibbi si tey parce que yëguwul. laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah sallallaahu alayhi wa danga may nax dama ne ko demal ñibbi dama nga togg reer gaaw boo ma ne sidd sax sidd ma soxna si na neex ah, parce que waaye day ñëw tey waaye digal Aboubacar Sadiq. soxna si daal fomp na saa ngi xool waaw kee ma wax lee ak ni ma ko xamee gisal ñu kii ak kii ma wax lii kii nii sa jeex la tudd. lu mu wax yàlla def ko ke yalla ku yoon lu mu wax yàlla def ko ñaar ñi war dajé tay tey combat Aboubacar doogu ni ko lan la mu ko barké li nga wax jax mu ko dama togg reer sa jëkkër dina ñibisi tay dina reer si soxna si comme mom ñaari mbiri bu dajé bi ko gënal lay tan mu tan bi Aboubacar wax ni ke mom ay wax jëtte a na ndax naa ci ki egg dugg tal defal ay reeram avant mu yek taxi bi gaari léegi dama la si def ngooy songu bagage dugal tuuti sala njool ma bi def masir na nga jëkkër ji ñu dugal ci biir kër gi ndaw si di di xool waa ji moom parce que Rasulullah wax nan lay demaate ci yonent bi ni ko li nga ma la tëdde nan lay gis sa waa ji lii la ma waxoon bi ba a reer Jibril ni cëpp kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na de mu ne ko mu ne ko waaye bu si dara dara jaaxal lan la mu ne ko yow yaa wax ni ya gën ci kaw yaa sa borom rek bëgg ba yàlla ni ya gën ci kaw suuf mu ne ko sa borom nangul na la loola waaye yow yaa wax ne aboubacar moo gën ci kaw suuf lu mu wax yaa ko wax lu mu wax yàlla mu ne ko yàlla nangu na ko aboubacar siddiq du waxantu mu ne ko ñàkk gi mu ñàkkam wax lu dul dëgg moo tax waa ji deewoon na bañ suul ko waaye yàlla dekkal na ko te mi ko amee ci sa barke yu rasul daal ne ko bu mu la jaaxal li nga waxoon a am aboubacar la yàlla du tas tas yaakaar xam nga lu xew mu ne ko mu ne ko dinañ ko dëggal bu waaj ñëwee ban berneer ko ba mu reer ba noppi bay sangu fa lañ koy reyaate ndax ruuge di rek faatu woon na ndaw si xamul li xew togg na ay ginaaram defar ay berdeem jox jëkkëram gisanteeg moom mu noppi wàññi ko aal ma sar bi tàggal ma ndox fa mu doon sangoo fa la waaji amee malis fa la faatu waat ñu ko suuf nga xam ne ñoom ñaar kenn ci ñoom sa wax danduwul dee woon na yàlla warmaal aboubacar ci barke rasul alayhi salatu wasalam wa bi abi bakrin wa abdillahi wa bi abi bakrin wa abdillahi zidni ya fadlan maa lahu tanaa'i wa bi abi bakrin wa abdillahi zidni fadlan maa lahu wa bi abi bakrin wa abdillahi ngi ñaan yàlla ci barke mi nga xamne mo deug bo lu wax yalla faral ak abdullah domam bi nga doli may ngeene dul jeex kan moy abou bakkar sadiq abou bakkar sadiq señ bi waxna la deuxième deuxième yi def na ma juroom ben xama juroom ñaar juroom ñaar ginaaw ñent sa bay suñu ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo nek deuxième ginaaw rasulullah ak fatum abou bakkar ci top am nga wit waye bimu mu ba nopi maanaam maanaam avant muy faatu ba tollu ci xam ne mi ngi jub sukkuraat mhm. daam lu mu dénkaan waaw mhm. yonent bi denc nañ ko ci ne Aïssa Aïssa doomu Aboubacar Siddiq la mhm. mooy mu woote doomu ni ko yëg naa ni sama heure génn adduna jot na mooy ñu wax testament yéen ñii nga xam ne maa leen jur samay doom xam ngeen ma bent bi dund maa ak mooma bi mu génnee àdduna uma keneen ku dul moom bañ naa ko maa ko wut tey nag faatu jot na waaye li ko wër ci ay saawa daa bari ay junniy junniy lëw ñaan naa yàlla ñaan ko mu rasulullah su fekkee ba tey kóolare gën see xool maa ngi mi nga dox su faatoo nañ ma suul ci wetam waaye kàddu gii ma leen wax nag mu ne man ko maa ngi yéen yéen ñi ma jur bu leen ko publier mukk ci mbooloo mi ndax kon coow day bari ndax dañoo xam ne yéen ko ber bu kenn jege ci gat ngeen ay su ma faatoo ba ngeen teg ma ci jàng mu ne waaw mu ne ko rombu leen buntu rawdu bi bu leen abbu caabi ki ko yor ndax amu ko du woon caabi ji yi gis ci moom ñoo ko yor bu leen ubbi buntu bu kenn def commentaire ci sama bàyyi ne woon na ma wala yàlla wala rasul ak Abubakar romb leen fa rek su ngeen nee ba jàkkaarloog port bi na ngeen ko wax ne ko sa xarit bi de génnaat na mi ngi lay nuyu nee na day ñëw wala day dem bàqee dëggal jooju wax Aboubacar fi mu tëdd la ni doom yi bu ngeen robee buntu bi rek nuyul leen ma ko nee ko faatu naa ma dem bàq ya wala ma ñëw fi mu ne bu leen àbbu caabi déggoo ma de caabi ji ki yor caabi armée bi bu leen ko ko wax bu leen jël caabi ji bu kenn fëgg bunt su leen ko ko waxee bu jógee moom moom yonent bi su bi boppam bunt bi ma dugg su ko dugg yóbbu leen dafa yóbbu ñëpp nu yéen Aboubacar ci jaag bi jang jang jang jang jang ba toll ak armel salam alaykum ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñepp ngi deg mbolam bi top niw bi sa xarit sa wolere sa taanu genn ad àdduna abubakar sadiq neena fokay entrer est ce day jall directement bàqeer fañu sul ñepp wal da ko indi fi nga ne ci saa si bunt yi ñu tël du yonante bi nga xam ne ko kànnaar bu dee kalaate palanteer yi kalaate waaye yoroon caabi ji seet ko ku def li ku def li ku def li waaj ji sax népp foofu kero ko bi mu ñëwee doon soo ko ubbi bi mu yéen ni teel ko ba ci rawdu bi lu xool fi jàkkaarloog def rab rab rab rab suuf si ah tuuti ñu dégg benn baat mu ne udxuluha ah udxuluhu dugal leen ko baat boo xam ne kaw asamaan

وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما له تناعين وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما له تناعي سنتوا نينا رسول الله موتو نجاوا يبغركو ابو بكر بن سلمان لوتاخ سيدنا alayhi الصلاه والسلام موني ni suma faato mbolem ñent saawi ci mo ak lan su dekki jotee rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu jëkk dekk dekki bakkar ci tok ak ban mu ne ko su yalla dajalee mboolem jaam ñi qul inal awalin wal akhirin la maj ma ila mi khat yowul mahlum su ma yëngu ko ay daal mu kasi woon su boba ba jaay mboolem jaam yi yëpp ci kaw suuf ki jëkk judd ki mu judd ki jëkk dekk dekku ñëpp toog ci barab señ borom di poser question yi boo kan moy sen borom fi ngeen ñew leen fi ndax la ma digon defal ñew ki ñepp tudd Nah, yang képp moo naan barang, tàll baaraam ndax ñëpp dañu xoolante kan moo war a wax ak yàlla mboolem yonent la wali yi lu jabaawu awliyaa rasulullah rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yang jóg nee su ma ñokki jóg taxaw kan mooy nekk deuxième Abubakar Siddiq gis nga ba ma tontoo ba noppi dafa raaje ni mboolem koo xam ci man nga bokkoon sama xeet jóg leen ngeen ñu def ñepp ra wara top a alayhi salam neena may nek premier abou abubakar mooy nek deuxième nee na bu ñu doxee ba mu yàgg abubakar mooy premier man may nek dernier dernier duñu dugg àjjana waaw lutax tax rasulullah alayhi salam lol di manam lutax départ bi yonente bi nek premier ci ful bi ngi dem tuuti ci kanam yonente bi nek la dernier yonente parce que may contrôler kep ko xane aji won nga ci man musa sax ashadu an la ilaha illallah wa ashadu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam duma dug dugg àjjana mu ko bàyyi ci biti ak lo soufé soufé dara ja motax suma ma jiitoo Aboubacar topp ma ba ma dëgg man bunt bi dama tax ne Aboubacar doxal mu dox ma top gina man di contrôler sama gaay mais may dor pa Aboubacar dor pa gaay dor dóor pa ñuy jiitlante ju ma àjjana ne Aboubacar Salif mooy def lool ak man mhm. hein né suma dee saraax bi da bu né ba ci buntu day taxaw xaar ma ba sës ci ma su bunt bi dugg Aboubacar moo ciy topp mhm. xoolal loolu li ko dara ji ko yàlla ki mhm. kii mooy Aboubacar Sadiq Aboubacar mii sëriñ Xaadim ba tax serigne touba di wax ne ma nga ñaan ci barkem bi Rasulullah genné aduna alayhi salatu wassalam dëkk bi tas coow li bari kenn xamatul foo jëm kenn xamatul kuy kilifaam lislaam nar a nar a moom fépp ko fa de da ko fekkoon mu fanaani ci kër soxnaam wax nañ Omar li muy am am doole ba mu ko yëgee keroog daa duur Aliou jàmbaar la daa la faj daa gën a jaas ni moo na ma rey la kenn nga dend ak man ak foo ma naa ma dégg nga Rasulaay génn àdduna yow di ko fekk parce que mënul ne kenn ci ñoom foofu parce que fi mu yonent bi toll 63 ans du mat lool ànd ak kattan ànd ak doole adduna di ko diglu lu koy xëy yàlla faat bu ma kenn feet génn ak andi ko wax ma rek Omar Kasari ci def noonu Aboubacar lañ jëriñ jëriñ mu ñëw tàpp tàppal leen Omar di bifu di daanu Ali bifu di daanu Ousmane di bifu di daanu ah moom daan leen leen de xanaa da ngeen fàtte al yawma akmaltu lakum diinakum wa raditu lakum islaama diina اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا سيدنا أمر نتك تك با آية بما كنت أقول ديغ تاي نك ميشونير سايو ديغ فيني ميشون بي جيخنا موي موي واتاك سي بالاس تاي انت صاحب نك ميشونير لو ñun ko mission bi jeex na في دفتي maanaam ñàkk a wopp gi ñàkk tawat gi ñàkk niw kattan gi bu mu la ci rey li la fi indi woon mat na da war a ñibbi parce que liñ jëloon hôtel bi pour fayal na ko fan yi daa jeex yont bi jàng aaya bi ñëpp jàpp ni ah ginnaaw lislaam kat lépp jaasile woon xeex guddi xeex bëccëg kenn du melaw kenn du yendu nangam nangam léegi mat na xanaa léegi na nopp lu am na nekkati nopp lu gi mooy dee na mooy seen musiba neex na Abubakar déggoon na ko mu jàng leen aayam xam nga lu xew mu ne waaw man kaana yaabudullah naa xam ne bis tey fa inna la hayyun laa yamuut waaye man kaana yaabudu muhammada fa inna muhammadan na ngeen xam ne fa inna muhammad xat maata ku yàlla ñoroon ak lislaamam ak dénkaaneem yàlla du faatu nan continuer mission waaye koo xam ne rasulullah nga doon jaamu mbaa boo ko gisee def ko boo gisul taxaw loolu neex defal yont bi génn àdduna tey gaa yëpp ñu nërëb mu delloo si leen bantan gis nga boo gisee bi yonent bi génnee àdduna sala salaam altine kenn dencu te boobu galas amul sambre froide amul amul fu ñuy conseillé nit amul produit bu ñuy def amul produit bu ñuy def sa kaw lu teg ko mu ne sàng dara yàqu ci trois jours ni mu gën a gars ko def keneen xool néew bu faatoo léegi léegi léegi léegi danaan xadd wow parce que deret ji mooy mooy mooy mooy way seconde sur seconde bu si teg commencé changé da ñëw fekk gémmiñ nga weng ba dee bucceeku làmmiñ waras maanaam ni nga xamee woon aas su faatoo loo dootu yow dootoo mel nii yii day suulu day suulu pax yi maanaam ni nga gis sa kanam moom ñaari bët nga xam nii xam pax yi bakken bu nit faatoo loolu day maasaloo waaw bu dul woon ak galaas yi ak kii yi mooy amee ci néewaaru ndax melokaan jar naa bàyyi xel nak ndax du ñak bis na ñew un jour ween dara lu mel non sallallahu alayhi wasallam ñu foogee kooku loolu mënut mën ne yonent bi genn addu aw ba ka taxaw ginaaw motax ñu tek premier jour lu ñu kan mo wara jité jiite deuxième jour gaay de ci warante batay kan troisième jour kan mo meuna mat gu toll nii fi yonent bi tegoon tank mu tek ko fi jitum xel yëpp jàpp daje ni yonte bi nekk na fi lu mu mos a def jiital ko kon nañ ko jiital loolu moo tax ñu fop xilaaf bi jox ko Aboubacar Sadiq wa bi Abi Bakrin wa bi Abi Bakrin wa Abdillahi zidni ya fadlan ma lahu tanaa'i wa bi Abi Bakrin wa Abdillahi zidni ya fadlan ma lahu tanaa'i وبأبي بكر وعبد الله زدني يا فضلا ما له تناعي كم بريتي وقتها بين خسارة كثيرة مرينا دنيا أبو بكر سيدي صلى الله داخل بس ñu wara tabat tabax jakka wara defar daara yi wara war door gëssi diiné yi mu wax alal ju bari ta amuko mu dajale mbooloom mépp ci barab bi ñu toog mu ne ko yàlla ñor ak bu yonent bi alayhi seetal loo yéene yàlla loo yéene yàlla nga di ko tey bu ñu déggee wax ji Seydina Omar njàmbaar gi ni ñokket jóg ni ginnaaw yàlla woote na naa jóg def ci lu ma man kan mooy lebal yàlla loolu laay wax. yuxridu llaaha xardan asana. man zal lazi yuxridu llaaha xardan asana. waalahu waaw fa yudaa'ifuhu lahu adaafan kasiiran loolu la alxuraan wax. kan ci yéen mooy lebal yàlla bor bu rafet. su ñu eggee fa nga xam ni patrimoine dana fa jafe. yàlla fay na lu gën fukki junni yoon li ñu ko lebaloon. kan mooy lebal yàlla rasul laay mooy wax man maay ndawul yàlla kan mooy lebal yàlla. saa bu yëpp gajabu Omar buur daw dugg kër. néeg bu mu fekk cinq cent mille mu jël deux cent cinquante. dem ci gétt ga fekk fa lu ñaar fukki xar mu jël fukki dem ci bëy ya fu mu fekk me mu jël diis ya ubbi armoire fu mu fekk fukki yére mu jël juróom yi xaaja xaaja xaaja xaaj ba def lépp ci ëmb ànd ak doom ñëw ni këpp ci kanam rasul alayhi salaatu wasalaam di koy maa ko lebal def mu daw songu kër foofu ay gileemam am ñu ni fukki gileem ak ñaar la am ñu wax ni téeméeri gileem ak ñaar fukk waaye du ci maanaam alal ju bari la mu sëf ko ba mu fees mu jëw jëf ku ci yàlla yonent bi laaj ñu ko ah, diw lii nag mun ko yàlla ma ko jaral looy bàyyi waa kër ga mun ko daa maa xaaj leen mhm. daan ñëw génn kayam teg woo mboolem ku ko doon jaay mhm. boutique yi ñëpp teew mhm. sa boutique ñaata fa ne normalement waluru dix millions fa ne mu bind yow sa boutique ñaata fa ne mu ne nangam mu bind yow ñaata nga ci bay mu ne nangam mu bind hmm. yow ñaata mu téméré gërem téméré xar téméré nak téméré nak manam mbollem do bu ko am ci kaw suuf mu dindi ko abubakar tak lepp ba paré taf ci ay gërem ni jitt len ba dugg neegam daal armal num musa am muy luñu sopp mu tak abubakar nak ko ba ni fan nang daf yaramu len amul lu ben manto bu xong ma tarax lay wax daan nañ ñëpp loo leen joxal ma ko yonent bi alayhi salaatu salaam ñu jiitu ko mu ñëw fekk yonent bi salaatu salaam ni daret ni daan nag yaramu neen ak benn mante boo xam ne da koo laxasaay yonent bi abubakar lii nag mun ko loolu la ma yàlla jaral loo bàyyi kër ga mun ko yàlla lo andi fi mun ko li ma amoon lépp jox naa li ma amoon lépp des ak yàlla nooy def abubakar ni war war gi dañ ci mbedd bi bi muy dem këram dajeeg mbooloo muy ñëw mu rus ndax yaa mu yeen ni mu taraf laayee mu bant di càppantu ku ñëw yëkku wa ki kanam mu sëgg kii daf dof la ak ni ko nit ñi xamee ko ndax yaramu neen ci tuur de gibli ni cëpp bàyyi ko asamaan juróom-ñaar terax naa yow mbàjj ma xong def yaramu yor bant càppal jàkkaarloo yonte bi di càpp càpp suñu borom ni waa xanaa kii du ko ah, mu yàlla neen ku bi ko def ko saf tey ji aboubacar mi yor mbàjj ne mbàjj bi terax yaramu neen suñu borom neen aboubacar ko saf ci kaw suuf ku deful ni faaliwul moo tax ma sumi ko yonent bi daa mujj tarax laa yu kiram ba baaj ba xong ñëpp yore bant maag ñëpp ñëpp jàppali bant moom mooy Aboubacar Sadiq seen xaadim وسليا على النبي وسلمي واخدمي حاجة كل مسلمين وسليا على النبي وسلمي واغلبي حاجة كل مسلمين